tàng dafa yaram. <laughs> ay ca ngeen xam man wax dëgg yàlla man xam nga man dama dama kontaan ci sama bopp ndax damaa yàgg wax waa Pastef jubuñu man moom lii laa mas a taxawee jamono bi ma koy wax nag position wéetoon naa ci trop da nga doon dalal leeral am na ñu doon bind sax booy bi dañ ko yónni et cetera man dama xam ñii c'est-à-dire que ñoom ñi doon defender Pape Alé ñaa démb ñoom ñooy chargé Yérim sekk tey te li Yérim wax ak la Pape Alé def boo peesee poids bi. li Pape Alé def presque ton la Yérim 10 kilos la def bu dee def am na koo xam ne document bi dañ ko classé top secret nga dem lijjanti ko ba am ko baraan génne ko koo xam ne message codé de gendarmerie Oscar Serra yow yaa dem décodé ko sàcc message bi génne ko teewul say moromu journaliste dañu ñëw défendre la d'accord bañu lu ma leen ko de nangu naa seen position yow yaa taxaw ne un général mooy tabax immeuble ndeke da ngay fen ñu jàpp la ci loolu journaliste yëpp défendre la mais alors que ñoo doon défendre Yérim démb ñoo wëlbati ku cuub seen drapeau walbati seen manteau dem di charger Yérim te ñoo doon défendre Pape Alé léegi loolu nag ku ko mën a layal man jàpp naa ne yow doo gor moom gor amul mënul layal loolu benn position bi ngay nekk par principe ni ngeen ko waxee da d'accord naa par principe mais ku wéet ak waa ji ci ruq di nga ne ko ah waroo woon def li nga def mais par principe di nga taxaw opinion bi yëpp xam ne ah kii kat sama dëkkandoo la sama àndandoo la ñoo bokk liggéey bi dama koy défendre comme ni ko ah, ni noonu la ko kii yi defee jàngalekat yi noonu la ko waa santé di defee noonu la ko ñeneen ak ñeneen di defee man nag damaa jàpp ne looloo yàq réew mi moom moo tudd par loo politiciens yi tamit noonu lañ koy defalante ñun citoyen lambda yi nga xam ne politique wuñ ñoo amul ku ñu ko defal ñun menuisier bi buñ ko jàppee amul ku ko défendre tailleur bi ku koy défendre soudeur métal kan moo koy défendre parce que amuñu kuréel goo xam ne dinañ mën di chantage état wala di leen teg pression presse bi am nañ ko ñëpp ko am nag. politiciens yi moom ñoo ci gën a yées far ñoom moom mën nañ ñuul tey kub suba beneen kii ñu dem weexaat tàll ñun askan bi nag ñoo amul ku ñu nekkal ci société bi malheureusement nag ñu dem fal un régime boo xam ne nañ nañ waxante dëgg régime bii moom ba régime dalay ñëw ci Sénégal ba tey lu mel nii mu ngi doog a xew li mel nii di am moom mu ngi doog a xew un régime boo xam ne da ngaa ñëw nit ñi xeexal la rayante parce que dañ ne dañ da doon jaay doole ñii naan dañ doon xeex man mu damaa gëm ne juboo woon mais ñi gëmoon loolu yépp tey kenn mënatul wax xam nga lan lañ ciy waxa ñoo tey ku fi def loolu parce que amul lu ñu waxati parce que ñu bari jàppoon nañu Ousmane Sonko mii Macky Sall da koy jaay doole loolu rek nga doon dégg ñu naan waa Pastef dañ leen di kidnappé dañ leen di for ci mbedd mi la preuve que arrestation Diomaye Faye amul ku bokkul Pastef ku ko ñaaw ñaawlu néew nee nañ Diomaye dañ koo tooñ lan la Diomaye bindoon fees ba mu jekk nga jox service Macky Sall mu lekk tey bu ma ko bindaloon Diomaye nga defee man dinaa wàcc palaato bi te foruñu ma yóbbu pourtant ñu bari dañ ne woon non délit d'opinion la kenn waru ko cee jàpp loolu ak ak lii ñii ñuy topp nii lan moo gën a garaaw maanaam yow tas taxé nga magistrat yi da dëmm benn do taxé wala dëmm sax ay buuse leen def parce que ñoom ñooy jël nit ñi fees leen daggate leen defar ko ba mu jekk li nga ko daggate jàpp luñ ko mais li wax nii mais jàpp nañ ko Samuel dimbali ma mais jàpp nañ d'accord après nga ñëw après nga ñëw si loolu. fi ma wax ko mooy Xasan. daggate leen amul naawlu soos leen. jongay colossalisation de la justice la bindoon. colossalisation de la justice la bindoon. te ba mu ko defee jàpp nañ ko mu tëdd 11 mois. kon tey ku ko def tey na nga jàpp nga tëdd 1 an. waaw s'il te plaît Samuel jàpp sa yàq nga. rëy laa ma jëru maa jaay daggate soos noonu la ko bindee woon. parce que dañ ñëwoon dañ koo tooñ dañ la woon dañ koo jaay doole mhm. te lam bind xam nga ne man ni bu ma ko bindoon ku génne ne dañ maa jaay doole waxoo dëgg parce que dañ ma war a jàpp parce que chef de l'état la accusé ak ay magistrat mhm. mais nag Sonko la lu garaaw loolu la def place de l'Obélisque bi ñu ko falee fii grand théâtre lu mu wax magistrat yi merci beaucoup teg ci déedéet ne ñu koy fenal boo boobu la ca yokk parce que réew mi justice bi mu amul indépendant soo ko defoon fu mel ni Amérique wala France say tànk du laal suuf ak autorité boo mën a doon nag ak ku la mën a fal même premier ministre France bu xëyoon wax loolu démb la doon def déclaration politique générale am bu ko waxoon démb démb pare na ay tànkam du laal suuf justice bi dañ koy taxañ parce que justice bi moo am indépendant moo tax Diomaye bi mu ñëwee bi muy campagne dane woon day génn ci conseil supérieur de la magistrature ñu ñëw ba mu def assise ba pare ñëw ne non c'est am na magistrat yoo xam ne nee nañ bu ma génn man déjà sax dugguma génnu ma léegi seen loolu nan lañ ko mën a tuddee ñun dugguma génnu ma ba mu ko defee laa ne leen am ngeen problème parce que justice moom xamal ne dootul indépendant alors que mu nomeel ñu benn procureur boo xam ne man mënuma comprendre moom affaire ndóoy moom mooy lan da nga ne cëp dajeeg benn scandale boo xam ne dafa daj àdduna mooy affaire ONAS ñu nit dénoncé la ne la maa ngi scandale yi ndoxu Touba autosaisir woo woowoo ko nit ñëw ne la diw dénk na ma milliard ngeen woo ko muy ñaar yu xamul noo koy analyser nag scandale boobu ray ñeenti bakkan ca Touba mooy ndox ma xam nga rey na fa ñeenti bakkan ba tey kenn woowul seex Dieng scandale ba tëdd di nelaw alors que ngay ngay ngay for ñoo xam ne la ñu wax maanaam boo ko posé scandale bee waa ji dénoncé parce que nee naa la tonne la ak di kilo loolu mooy la kenn mënul layal mooy lan kenn mënul xam mooy lan alors que nga dem jàpp benn cadre boo xam ne dane am na ay sur dafa dafa ne jox nañ may ojo yoo xam ne waa ji expliqué na ci lii ak lii ak lii mais nga gis waa Pastef laa wax wax lu pire mooy Ibrahima Sall mi bokk ci ñoom ne xam naa nu mu tudd ñaari gendarme yi réeroon Didier Badji ak Fulbert nuñ leen faate dil ban lañ leen teg nan lañ def ba mbaal leen sans limite la ko nettalee ñëpp di dégg mu ne xam na ay gendre gendarme yuñ dugal ci barigo taal leen ñëpp di dégg alors que pour procureur ngi ci réew mi alors que Kader. ojo la wax audio ci ñu doon tukki kalaan gaal gi. mu ngi circulé ci réseau yi ñëpp mu ngi ci groupe whatsapp yi yëpp ma nga fayu xannaa la léegi gar man xoolal nekkuma sax di layal kadeer waaye dama ne ñaari poids yi laa bëgg ñu peese ko cest dire mooy justice te duwul njaaxaanaay kon parce que ku xam ñaari gendarme yuñ baxal ak ñu fii riir yow yaa gën a neex a ki nga xam ne moom nee na ojo audio yow nag yow xam nga gendarme yi xam nga fu ñu leen baxalee xam nga fu leen saafe xam nga nuñ da baray yow xam nga ko yow Ibrahima léegi loolu laa bëgg nag ñu xulaaj ma moom maanaam lii mu wax nii lii mooy lan te sosuma ko de inventé wu ma ko ñu gis benn Assane Fall mu taxaw saaga magistrat yi ñu yóbbu ko garde bi ñu xëy ne daa dof saagawul yaayam saagawul baayam saagawul nijaayam jamul boppam ñu ne dof na ma nga ne continuer di saaga yaay jàmbur yi ba tey jii ñu gis benn Azoura Fall mu saaga président de la république tey moo premier ministre ñooy ànd di la mission te Ousmane Sonko moo woon moom du ànd ak saagakat as Asura Fall saagakat kilifa saagakat la nit dof saagakat la uh, Ousmane Tounkara mi jawaay dala États-Unis saagakat la léegi ñoom kon lan la ñu tuddee saaga li ma wax sénégalais yi mooy waa Pastef jubuñu te dama koy maintenir ñu tey jubuñu ëllëg jubuñu ginnaaw ëllëg te ku leen dénk réew ci torox nga jëm. maa ko wax. d'accord très bien rebondir mm. xam naa ñu ngi doon wax vision deux mille cinquante. Mm. mais bu dee ñii opposition bi yaakaar. Mm. deux mille soixante dix sax fii la ñuy fekk. ndax mateewuñ ko amuñu xam-xam wuñ dara ci réew mi. toog ñum lañ yaakaar yóbbu leen au front di ndoog toog di wax. Abdou Nguer dama bëgg nga xam ne deux mille vingt et ba tey yaa ngi topp ci dara Ousmane Sonko bi te mënuloo ko dara te boo ko bàyyi li lay dal doo ko xam gis nga nit li yàlla dogal da nga koy nangu Iniesta bu jël ballon d'or ndax dafa daf parce que dafa bokk ak génération ki ñuy wax Messi. Ousmane Sonko jamono ji Sénégal moom la ko yàlla dénk ci loxoom dans jamono dina ñëw nag mu jeex ndax yàlla moom lépp lu mu def appal bindal na ko àpp waaye jamono ji ko contre Ousmane Sonko sa xol dina naqari da nga bëgg a dee te élection yii di ñëw. xam nga ñoom non bàyyi ko mu wax. bàyyi bàyyi ko mu wax bàyyi non ma dagg. garaaw man ma dagg. non man mun na ma dagg. eh eh déedéet déedéet Fatima moom moom mooy. ànd ak man mun na ma dagg